fi Aïcha fidèles téléspectateurs donc comme ni leen ko euh, Gomissa Gagna Fara Ndiago ba ca Thiès waxee tout à l'heure ah donc muy waxtaanee. Thiès Nord waaw Thiès Nord. Thiès Nord mooy fu baax fii. Thiès Nord. <laughs> Aïcha échec à répétition yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko euh, Cheikh Tidiane Gomis daf ñuy wax leçon yi nga xam ne war nañ ko ci mën a euh, tirer. xam nga avant avant ngaa jël nawle ma nuyu ma nuyu sama beneen nawle bi. la toute mimi euh, Fatima. waaw nga dëgg la uh-huh. coach sañ seeti comme d'habitude comme ah, d'habitude vraiment information. <laughs> dañ koo war a di ko fësal. da nga mën a yàq. la mais du bokk ci maa ngi lay nuyu ñi fi nekk ñëpp Babacar Keba Louis yéen ñëpp maa ngi leen nuyu. Mhm. nuyu ña féete ca régie bi aussi nuyu téléspectateur leeru jamono. comme nañu koy defee tous les jours rek ci kanamee tuuti ma ñëw. Mhm. yaatal lii fii ruusandi rek ci actualité people bi Salma. avec plaisir lay doon en tout à l'heure ak Fatima Kité Aïcha Nawle voilà léegi euh, gannaaw bi nga xam ne euh, jàll nañ ci yenn rubrique ñu ñëw nag ci euh, sport. Mhm. ci rek week bi. neexul Sénégalais yi dara. Mhm. Euh, équipe nationale euh, bu euh, Sénégal. Mhm. ñu éliminer ko waaye nag mënuma door di wax te maanaam waxuma ci tiis bi dal ci sport sénégalais. Mhm. génn àdduna un grand champion. Double Less. Double Less nekk koo xam ne dans les années soixante-dix. nekkoon na koo xam ne euh, ci làmb def fi ay jaloore dégg nga euh, Double Less grand champion Double dans les années soixante-dix euh, ku mu jàkkaarloo nga xam ne jàkkaarloo nga ak mbër nekkoon koo xam ne tamit ku mënoon liggéey la bi mu paree làmb ñëpp gis nañu ba tey jii mu am ñaari doom yoo xam ne ñu ngi def ay jaloore ci làmb muy Balla Gaye ak Sa Thiès. Mhm. mu nekk grand champion ñu ngi vraiment metti na lool. Mhm. le monde sportif. Mhm. sénégalais dégg nga euh, génn àdduna ki nga xam ne moom mooy euh, Double Less. di ñaan yàlla rek yàlla yërëm ko. xare ko àjjana. Mhm. Euh, te yéexee ñu. te yéexee ñu waaw di koy jaale ñaari doomam yi. wallaay métti na waaw na métti képp ku nga xam ne da doon bëggee làmb. Mhm. fii nii parce que nag euh, am na ay jéego yu am solo yu nga xamante ne jot na koo def. Mhm. fii de ci Sénégal ci làmb donc ñu koy. c'est un euh, grand ko aljana. te yàggal sarax bi. c'est na lool métti na ñun démb bi ñu jël kii. information bi metti nañu lool dëgg dëgg mu metti nañu bon léegi nag bu ñu euh, jugee ci loolu nag comme ni mu leen ko doon waxee euh, Sénégal mhm. ci week-end bi euh, basket dañ ko éliminer mhm. demi-finale Côte d'Ivoire ci année deux mille vingt bii boo leen di xoolaat rek Euh, ñu ngi ñu ngi échoué rek hmm. saa yu ñu demee échoué bi gën a rëy moom mooy lan mooy Jeux olympiques bi du gis ngeen ko. Hmm. Jeux olympiques bi gis ngeen qualifié premier tour sax daf ñu doon léegi daf ñuy jafe. Hmm. qualifié premier tour sax daf ñuy jafe. Euh, mu nekk ay ay ay ay péripéties yoo xam ne. Euh, mais lépp lu ci am échec man euh, dama jàngane ci échec la ñu mën a jóge pour am ndam. Mhm. parce que da ngay tirer enseignement par rapport ak loolu mais Sénégal dama seetlu benn affaire et ce qui est malheureux dafa am benn baat boo xam ne dañ koy wax. même sax dama ci gis yenn journalistes yi sax parce que ñoom ñooy véhiculer information yi dañ koy wax. Mhm. ci groupe journalistes yi maa ngi ci ñetti groupe journalistes. waa sportif. damay dégg ñuy wax lenn ba sax ñu ne non non il faut les encourager non il et préparer l'avenir waa ci encouragement rek la ñuy préparer avenir qu'on se dise la vérité mm. est-ce que ci encouragement lañuy ñuy non ñoom xam nañ ñoom ñu di wax encouragement ñoom xam nañu lan mooy problème bi mm-hmm. parce que bi ma duggee ci benn si eh, kii groupe wax naa ko ma ne leen yéen ñii yéen ñu bon ngeen yéen bëggu leen Sénégal parce que xam ngeen li xew xam ngeen lan moo tax échec yi di répété mais loolu yëpp man defe naa ne tey jii nag honnêtement am na koo xam ne échec yi mu ngi am kenn déggu ko ci mu wax mooy Matar Ba ministre des sports mm-hmm. est-ce que dégg ngeen depuis bi euh, euh, Jeux olympiques yi passé na ñu def ngeen dem échec waxu ci lii am na temps yii ñu ngi def ay échec waxu ci affaire bi ça ne marche pas. mu noppi rek ah mais mais mais non mais à la fin à la fin nag parce que nag moom liñ koy fay xaalisu contribuable sénégalais la dañ koy fayee. Mhm. oto bi muy dawal c'est le contribuable euh, gasoil bi contribuable sénégalais la war na gestu xool moo doxul doxul sport Sénégal doxul. basket bi tey ñoom échec bi lan moo ko waral comme yaa ngi doon ne ñenn ñi da nga gis ne ñoom euh, ñuy wax nañu encouragé nañ leen encouragé mais duñ wax euh, réellement ce qui se passe ci biir maanaam euh, terrain bi kon tey est-ce que ñu mun nañ xam lan moo waral échec les Lions. premier échec bi Boniface Ndong la entraîneur bi na wax lu tax. Mhm. waaw bare na bi Sénégal joué premier match contre Ouganda xool leen bu baax. Mhm. les spécialistes du basket même ku xamul basket s'est posé une question la défense du Sénégal Sénégal day concédé ay points yu bare Sénégal ci premier match am passé na euh, maanaam jël na lu passé li nga xam ne mooy cinquante points en hmm. basket waroo jël cinquante points <laughs> non non ça ne pardonne pas xam nga bi Sénégal gagné na fi am na benn équipe boo xam Sénégal da ko gagné euh, xaw ma su xaw ma lan mu gagné ko cent et quelque. Mhm. mais ku mu gagné cent et quelque xoolal ñaata la am. Mhm. passé na cinquante. non mais non bi muy am benn kenn ma koy nuyu au passage benn championne ngandam championne moo njëkk moo ma njëkk a ci loolu contre bi ñu joué deux matchs yi mu rek rek mu wax ma ko. Yaya Pouy ma koy nuyu au passage grande championne mooy say dans les salles ñoom ñoom ñoom euh, euh, Kadia Diary euh, champion maanaam ñu nganda yooyu Lyon yooyu mu ne ma Gomis attention la défense bi diyaari waaw yow sa défense commencement baaxul yaa ngi jël kii mhm. solutionné ko tu le solutionnes ah! fay pour loolu entraîneur pour loolu la. Mhm. entraîneur du pour ñëw rek di lekk rek ak di voyager. Mhm. mais non mais am na dama ne lan moo tax ñuy ut entraîneur. mais coach alors euh, Moustapha Gueye gis nañ kàddu yi nga xamante ni yëkte woon na fa est-ce que l'histoire ne lui donne pas raison après ce qui s'est passé. non mais c'est que histoire jox na ko euh, euh, raison waaye moom mi tamit. Mhm. il est responsable c'est le directeur technique national waroon na gis ne c'est la défense du Sénégal. Hmm. foofu le problème bi nekk. ok la défense gis nga non que bi la ak gérer gérer bi man bi may wax man bi may njëkk wax dama leen ne ma ne leen hmm, gestion groupe bi. Hmm. moom est-ce que tey jii Boniface Ndong nekk na koo xam ne am na capacité. gérer groupe bi am na capacité gis failles loolu mooy entraîneur. Mhm. man su may topp di wax ci entraîneur bii man damay xool maanaam euh, euh, euh, loo xam ne foofu la ñu fa sonnalee mu résout nga résoudre ko. Mhm. mais honnêtement li ma gis tey jii mais c'est ça aujourd'hui le problème. Mhm. xool leen finalu démb man ji lay suivi commencement boobu fin Côte d'Ivoire Tunisie les Tunisiens. les tunisiens bi ñu ñëwee seen premier problème mhm. xam nañ ne que équipe bii équipe bi maanaam dafa mën a ay euh, tir primé mooy trois points yi mhm. def ci ay te léegi xam na ne ci côté yi moom dafa am ay njool am na ay njool mu jouer rebond yi ak défense rebon défense noonu la Tunisie gagné match bi trois points la ko gagné ça a été chaud démb Côte d'Ivoire bi te loolu moo tax gis nga man damay ne ñun suñu adversaire dañuy jël leçon. Mhm. en 2013 Sénégal moo éliminé woon euh, kii moo dóoroon euh, Côte d'Ivoire bi match de euh, kii classement bo kii médaille bronze defetu Côte d'Ivoire boobu xam nga nu mu demee. Mhm. Côte d'Ivoire dëkkam xam nu mu demee dañoo liggéeyaat. dañoo def benn échec bu nganda ñu liggéey xoolal tey jii 2013 2015 déggoo leen 2017 déggoo leen. ba mille vingt 2021 ñu ñëw xoolal xoolal laps de temps boobu liggéey nañu et tey jii xoolal lu mu wan Sénégal. Mm-hmm. xaw na ko rey mu ñëw. avec le champion en titre bi gagné woon na ko presque. Mhm. gagné woon na ko. am na benn bal am na benn am euh, euh, kii possession bi Côte d'Ivoire am a à dix secondes dix secondes trois points dix secondes laa wax dix secondes ci basket ci euh, ci au max la ci basket dix secondes lu la. Mhm. temps bu bare la dix secondes nga gis foofu ngay xamee ne entraîneur moo am. alhamdulilah waaye entraîneur waaye. entraîneur dafa am solo waay. Hmm. entraîneur da ngay doon daanaan xoolal man naa ngi toog gis nga man man nag man noonu laa mel nag. Hmm. gis nga man ci sport collectif ak sport bu mu munti doon Cheikh Tidiane xam nga lu muy xool man entraîneur yi rek laay xool seen réaction. loolu tax gis nga boo ñëwee bu mat match amee yow boo ñëwee ci man laaj ma wax ma réaction entraîneur yi dama lay wax man bi ñu ne toog mu des kii dix secondes automatiquement léegi nag foofu nag entraîneur yi ñoo joué jaari Euh, entraîneur wu euh, kii bi euh, entraîneur wu kii bi nu sax Côte d'Ivoire bi demande temps mort mu demandé temps parce que possession bi ñoom la. Mhm. léegi il faut que mu wax ak joueur mi la possession automatiquement écran bi wane kii écran bi wane waa Côte d'Ivoire kii xam waa Tunisie seen américain bi coach bi lan la wax lan. Mhm. kii bi sax. Eh, reporter bi mu ngi koy wax reporter bu ngi koy wax marquage nañ ko pousse nañu pousse adversaire mu dem ci côté yi léegi ci foofu rek voilà ci côté yi. Mhm. mooy mooy ca xam nga xam nga ca gi nga fële fële ca ba <laughs> xam nga foofu booy tourner da am problème foofu la jour bi ñàkkee paas bi. Hmm. loolu yëpp ay xam-xam la. dëgg la léegi man coach man li bëgg a xam rek moo di ne comme tey par exemple buñ ne dañuy accuser entraîneur bi te fekk entraîneur bi moom du dugg ci biir terrain bi du jouer mais ña nga xamante ñoom ñoo ne ci biir terrain bi du jouer ñoom aussi duñ indi duñ wane seen i capacité pour mun a gagner man ça aussi ça ça pose. Euh, s'il vous plaît s'il ñu ñu ñu bàyyi xel li muy wax. <laughs> ñoo lajj ci seen i mbir début lañu am départ gaynde arrivé ñoom noonu la ñuy doxalee tout le temps fa lañ ci la nekk marché yeeg Sénégal yëpp loolu la ñuy wax nag coach ñoom ñëpp loolu la ñuy wax léegi nag bu mm-hmm. bu ko defee comme ñoom loolu lañ leen di bàkkee contrairement ak suñu jigéen ñi nga xam ne ñoom ay jàmbaar lañ coach est-ce que comme ñoom seen dirigeant yi ñoom xamuñu dara yaa ko wax léegi ñoom seen entraîneur dafa lajj xamul dara maîtriser que mu maîtriser ou pas mais nii mu ñuy doxalee équipe bi ni ñuy doxalee euh, jëmalewu jëmewuñu kanam est jotul ñoom ñi nekk ci terrain bi ñoom ñu xoolaat ñoom seen biir ni ñuy liggéeyee. Euh, d'accord naa ci benn côté yéen li ngeen wax joueur bi da am ay moment yoo xam ne moom itam war na jouer rôle am. rôle am moom mooy euh, maanaam. marquer ay buts marquer ay mhm. euh, ay paniers. wala défendre wala nangam d'accord naa d'accord naa loolu yëpp mhm. waaye bu leen fàtte ne ci. maanaam dafa am ay consignes consigne entraîneur dafa am il faut surtout basket consigne dafa am solo hmm. waaw bu fekkee ne consigne boobu ak yow mii yow ñu jox la benn consigne et alors fi nga nekk tu n'es pas à nag looy def pour wane sa maanaam sa mën-mën nga wane sa mën-mën waaw loolu nooy def beneen affaire sénégalais yi loolu sénégalais yi laa koy wax bëreet la ñu am. Mhm. et puis dañoo gaaw xooleen xooleen beach soccer bi beach soccer bi ñu dóoree euh, kii euh, Portugal. Mhm. champion en titre dóor Brésil ñëpp nee nañu c'est fini Sénégal na coupe ba. man kay dafa na. Mhm. bii nag bi Sénégal di gagné ci basket bi ñëpp newoon nañ c'est fini parce que gis nañ ne Nigéria toog na. ñu daanelee foofu Angola toog na. gars yi ne jeex na non dañoo gaaw. et puis beneen affaire boo xam ne moo am il faut que ñu bàyyi ñun à commencer par man. Mhm. di tagg ay yenn joueurs mel ni ay Michael Jordan. Mhm. te duñu Michael Jordan. ñun loolu la tàmm jël benn joueur euh, commencé di bind rek. waaye am na ci ku xew. waaw kooku xew moo ñëwee ca oh, oh, demi-finale la. waaw <laughs> xanaa daa jàppandi Fatima. mu xew la. waaw xew ñu lay <laughs> am na solo. zéro deful dara. soog <laughs> may dóor. deful dara waaw léegi non c'est kooku nag ngay wax kooku xew. moom la jël nag teg ko nag Michael Jordan. xale yi dañoo bëgg yooyu. waaw yéen ñii yéen ñii. ah ñoom waa ah, ñoom ñii ñoom ñoom célibataire yi. ma ne xam nga lan la. <laughs> le xam nga la. Ah. ma ne. ah waaye ñu ngi échoué di dem man problème bi du sax ay basket du ay football. ay hmm. nangam ñu ngi échoué di dem. donc yaa ngi interpellé ma tax ba pour. terminer moom laay waxal. Hmm. bu ma bëggul dégg nag. parce que euh, bu ñu demee wax ko ne ko Cheikh Yane mu ngi lay ah. na man Macky Sall waxal Macky Sall <laughs> bi doxul ñu ngi échoué rek de. ayca am na solo <laughs> ñu ngi échoué. ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax. xaaral may ma. Massa Mbassa. Macky Sall il faut non non li may wax c'est tellement sérieux. ayca foofu ma foowaanu. waaw nag sama xarit bi dama ne le sport sénégalais ne mhm. il faut que ñu accepter loolu. dëgg la. le sport sénégalais ne marche pas. ndeysaan. et on met beaucoup d'argent dans ce sport-là. dëgg la. alors que hôpitaux yi nit yaa ngi sonn. dëgg éducation bi soxla na xaalis. Mhm. ceeb bi mu ngi nii cher. Mhm. diwlin bi cher. ñuy jël ay ay ay ay millions des centaines de millions. Mhm. di koy jox ak ab équipe nationale muy échoué ñuy noppi. ndeysaan. c'est pas normal. lu méttee ñu daal. c'est pas normal. doy na waar euh, coach. Euh, yàlla nañu si borom bi tegal loxo rek ah parce que vraiment. le cas amul borom ñun ñoo war a liggéey. waaw ok merci dégg nga liggéeyuñu nag. waaw ñu jaajëfal Adama Ndao Damas dégg nga. non ñun dañoo liggéeyu. waaw yàlla baax na ma wax